asalaamaaleykum. maaleykum salaam rahmatulah. sëñ bi ñu maa ngi leen fay bu baax. maa alhamdulilah. maa ngi la fekk fii ci place bu amitié ngeen fi jaay li nga xamante ni moo moo di xar est que mën nañ xam fan ngeen jógee ñëw fii Dakar. ñun département Podor la ñu jógee waaw dañuy ñëw fii pour affaire jaay si car bi affaire jaay si car bi kar bi ñu ngi wax seer na mais ñun wax ñu ngi wax car bi seeruñ mais nit ku ne da ngaa indi kaalis bu tuuti nga bëgg jël kal bu mag xam nga loolu mënul nekk bu doon kenn ku ne xam nga li nga fu nga toll noo nga jëm foofu doo indi problème mais nga indi fukki junni wala fukki junni ak ñaar nga bëgg a jël kar bu jar ñaar fukk xam nga loolu du mën a sotti. ren defuñu woon programme ñëw dañoo yaakaar woon affaire pour li ñuy wax ci réew mi affaire affaire programme li kew ren dañu yaakaar woon ne. ren kenn du ñëw. lan moo tax loolu. lan moo ñun dañu ragal woon ne xam nga ñun suñu suñu suñu réew amul sax marché. kay dañu tere woon marché. xam nga bu ñu terewee marché Jolof nag boo ñë danga doo def programme ñëw dakaar léegi nag yàlla def ñu ñëw dakaar bi ñu wàccee Dakar nag ñu ngi jaay tuuti tuuti mais njëg bi amut. waaw njëg bi amut xont bi def mit affaire feri gi daf bëri dangay jënd ndog bari 1000 francs sa ngooñ 4500 xam nga loolu def mit te yow jaayu xar bu waroon jar 100000 yaa ngi koy jaay 60000 xam nga loolu def mit xont na ndox amu fi ba da ngeen di jënd ay barigo ndox euh, kon est-ce que xar dina romb dina yomb ren. xar nag xar warut yomb mais nag ñun jaayuñu lu seer ñun warut yomb nag mais ñu mais yun daal xar bi jëfuñ ci ñun waaw mais xam nga xar bu waar jar 100000 boo ko jaayee 60000 seerut. ah mais ñun fer bi moo ñu ëpp lu ñuy jaayee doole ah, da nga comprendre mais ñun fer bi moo daal wax dëgg yàlla fer gi moo garaaw moo bëri chaque jour da ngay fer lu yow jaayu lu ma cent mille yaa ngi chaque jour yaa ngi fere quarante mille sa quarante cinq mille loolu dafa bëri. xar yi nga xamante ni moom nga yor fii ay xaru ñaata la ci ci ci xaalis. xar ñaata xar bi amul firfiski. prix bi gën mag ay cent cent dix mille cent vingt mille cent trente ñun foo suñu suñu gët foofu la yem jimaa suuf. ñu ngi la fekk fii sa tamit nga yor li nga xamante ne moo di xaru yar yi euh, ban jafe-jafe am fi nga xamante ne fii ngeen nekkee ci place ah, euh, bu ñu xoolee moom ba xool bu ñu xoolee ba xool moom problème bi bëriwul noonu à part su tawee daal moo ñuy xaw a sonal ak ngelaw comme genre demb ngelaw bi noonu moo ñu xawoon a sonal rek tuuti. mais à part ça moom gisuñu fi difficulté à part tamit clients yi quoi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek mooy loolu mais daa mel dañoo xaw a ragal quoi. xar moom reenu ñaam bi la mun na dogee foo ko foogeewut waaw mun na manqué mun na bañ a manqué li gën a wóor daal nit ki bu yoree mun a jënd na jënd yeew moo gën a wóor moo gën a wóor euh, peut-être mun na am yu ñëw. wala bu ñëwee ci digg bi comme que xar yi dañoo xaw a bëriwuñu ñu yem ci digg bi ji parce que boo gisee lii la jaral rek koy jaay jarul ngay egsi parce que boobu egsi fee da ngay sonn yoon bi dafa sori li lay laaj tamit ci yoon bi dafa sori dañ naan du ñu fay mais dañuy fay waaw même fii même fii dañ ko fay fii dañ jël place euh, boo jëlee ay 20 mètres wala 15 mètres dañ la koy fayloo 4000 4000 moom lañ fi fay ñun mii kii jukk boo gis fii xar yoo gis fi taxaw fay nañ fi 4000 4000 ñu ne nag waa xaw ma ñan xaw ma waa mairie bi xaw ma waa xaw ma ñooñu mais ñoom ñooñu waaw yoon bi bon booy ñëw di fay ay cinq 5000 ay 10 000 xam nga nit ñi rek xam nga waa Sénégal nañu mel booy ñëw fi neexal jàll loolu la. gis nañ fi tamit ba ngeen fi nekkee ak léegi te tabaski bi li fi des bari baritul euh, est-ce que euh, amul yenn frais yu metti yoo xamante ni def ngeen ko ci xar yi. si frais bi metti na parce que xont bi moom dafa metti saako ngooñ 5000 4500 waaw. Euh, saaku ripaas mooy li ñuy lekk li naa ripaas bu dee bu Sénégal bi moom ay 8000 7500 kooku tam am ñu ci benn ndimbal parce que état bi a dimbali comme que fii lañ koy liggéeyee ñu wàññi ko même bu dee 5000 ñu mun ko jënd mais da nga ko jënd 8000 wala 8500. beneen bi jógee Mali mooy genre bii nii bii moom ñu ngi koy jëndee ay 11000 bu dee 50 bi la 11000 12000 mais bu dee 40 kilos bi ñu ngi koy ay 9000 waaw. waaw parce que xar mi moom parce que parce li nga ko jëndee xam nga ko li mu paas xam nga ko ñi fi nekk nga leen di fay xam nga ko bu lu mu egsee fi xam nga xar bu nekk ñaar dërëm ñaar dërëm la fi egsee boo xëyee suba bu lekkee dërëm la ko ciy tegaat bu lekkee ñaar dërëm nga tegaat ko ci bu lekkee ñeenti dërëm nga tegaat ko ci ba saa yu nga ko mën a jaayee bu jeexee muy loolu bu jeexul nga yenn say xar yaa xam foog ko mën a yóbbuwaat. affaire place yi daal nekkul dara amul nettoyage amul fu ñuy sangu. encore amul xoolal euh, taw bi demb si taw bi la fanaan baas yi baakuñ ngelaw bi ñëwee baas yëpp dañuy daanu encore euh, affaire euh, daal def manqué trop ki bi encore baaxul te fii kadi encore dañuy fay place bu ne 4000 francs te loolu warul nekk non par place rek boo ñëwee foo mën a nekk il faut nga fay 4000 boo fay loolu dañu lay dàq loolu nag warul nekk parce que boo ñoo wax kar bi ne ñëw war nañ jox kar yi fu ñuy jaayee fekk doo fay dara mais da ngay jënd ndox bari ko 1000 francs ngay fay place encore te amul benn sécurité moom amul dara amul nettoyage amul fa ngay sangu affaire bi dara baaku si. xont bi est-ce que daawul métti ci bi ngeen di. Euh, xont bi ah di nga dépenser moom ndaxte benn instant risque lay doon mais après. fur mesure yaa ngi avancé di ko gën di gën a yàgg si liggéey bi da ngay ñeme daal après ngay risqué mooy loolu noonu. est di jënd xaru yar ngir tabaski. Euh, en général nag am na mais du bëri mais comme que lii ay kii nii la ay laadum la ñi koy gën a jënd mooy borom gétt yi borom gétt yi ñoo koy gën a jënd ñoom ñoo ñëw ndax pour dugalaat ko seen seen gétt yi mooy loolu ñu gën ko defaraat. pour yenn am na tamit compétition yi di am ñu man ko yóbbu exposé ko affaire yooyu comme genre foire yooyu noonu. man damay jënd si xar. waaye xar bu ma gis rek mu rëy te yaa man aw ma laadum xaw ma pël-pël na rëy te yaa koo mooy sama xar. lu waral ah? ndax éleveur la sama xar maa ngi fay ñeent fukki xar wala juróom benn fukki xar fii sama kër chaque jour ñaari saako laay laay sotti ngooñ saako bu nekk 6000 kon xam nga ne xar bu war a yomb saako bu nekk 6000 lay jar ngay ci sotti ñaari eh, ñaari saako par bés at bi ñaata la xam nga ne xaalis la sans compter ripaas ñi la koy jaayee 9000 ñu bëgg a xar yomb mbote bu ndaw bu ma sañoon 5000 500000 lañ koy jaaye xam nga lu tax. ñun dañu am ay xar te gouvernement bi jàppalewuñu te boo indee sa xar yeew ko defal ko ba mu baax da ngay calcul rek benn xar nga jënd ko chaque jour nga dépassé ci moom 500 francs at bi ñaata la waaye daw daggee ci laa nga fekk mu duuf mu baax mu fay la ci 100000 nga ne boo jaayul ñu ne xar yi dafa seer te borom explique kat yi borom immeuble yi kenn nangu wuccee yar xar te yow loo loo yeew ñu yeewi ko sàcc ko te bu la sàcc bi jekkoo da lay rey waaw su yow boo dóoree sàcc bi ñu yóbbu la police te képp koo xam ne que yaa ngi sàcc xar mbaa nag boo ko dabee mu rey la yaa ngi dégg kooku moo amul benn xalaat te boo ko yóbbu police yi ñuy jàpp la wala ñu bàyyi la lu tax hmm? looloo tax xar day seer day seer li ma gën a mën a mën a xam. mooy li ñuy dimbalee di def suspension ak di def yooyu yëpp yàq xaalis la nañu dem bitim réew du dem Mali wala Mauritanie ñu jënd fa ay xar yu baree bare ñëw dimbale ko doomu aadama yi. gis ma fi benn autorité bu fi ñëw gis ma fi benn autorité bu fi ñëw ma fi gis daal moo ñëw di fayeeku boo fayul ñu jëm indi ay policiers ñu naan la da ngay fay par la force ñoo daal laa fa gis bu dee ñooñu ñooy autorités yi nag ñooñu ñooñu moom ay autorités lañu. waa li ñuy ñaan daal mooy li ñuy ñaan réew mi wala ñuy ñaan président de la république na dimbali sàmm sàmmkat yi sonn nañu parce que lii dañ leen waroon organiser ñu defal leen foo xam ne euh, bu ñu ñëwee dinañ fa mën a dallu am ndox am cabine gis nga benn cabine moo fi nekk nii ñaar nii bu ñu soxlaa kenn ki day taxaw boo moytu sax bu dee da sant Yàlla boo moytul li nga soxla foofu nga koy defee nii di la xool nga moo tax bëgg nañ ñu dimbali ñu ci loolu kat yi dimbali ñu ci sécurité guddi gi ak bëccëg bi yëpp parce que ñiy wër moom ñi sant Diallo moom amuñu guddi amuñu bëccëg saa ñu gisee la ñu war a lu leen kii dañ koy yóbbu waaw loolu tamit des na fi vraiment. Mm-hmm. jërëjëf soxna si maa ngi leen di sant yalla na leen yàlla yóbbu si kanam yéen seen tel ak seen kii yàlla may la jëkkër boo ko amul mm, jërëjëf.